neena yonent neena atte kat yi ñett lañu واحد في الجنة واثنان في النار يونت نينا اتكدي نيات لا نيو نينا نيار نييب سفر لا نجم كين كي الجنة رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة نينا جيج بي خم دغ ات دغ بي نينا كوكو موم الجنة لا ورجل قضى بين الناس ورجل عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار نانا جيس بي غيس دك بي نا موي كو مو خام لوتاخ بي ديف لنين نانا سفر لا جيم ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار نانا أجيش جيج بو خام بين ميتريزي وول دوسي بي نكو جوخ با باري مو اتي ميتريزي وول دوسي بي نكو مو اتي يوننتني سفر لا جيم ني نك فما ذنب الذي يجهل قال ذنبه الا يكون قاضيا حتى يعلم ني نكو واو داغي ني كي ميتريزي ووكو كاي كوكو لوتاخ ني ديغو يوبو سفر يونتني بامو ميتريزي وول دوسيي بي لا تا ورونا ген انا بون لا جوخي دوسيي بو ميتريزي وول نينا ген تيا نيل مان ديسيستنا تي دوسيي بي لولو امنا ني كو تي ديف تي نيوم نك مي خاينا بري وول waye neena lolou moy ki xam responsabilité deug يعني سنو برومون يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله داود ما لدف خليفة كوسوف أتل ما سما جامني ما أتبي نتيجي تدك وخو مانغا توب بانيخ هذه يو يا أترك يو للا نيخ غاي دف دارت سنو برومون مانغين دي فاتلين يونتي يالا داود يونتي يالا سليمان ba ma leen di àtteloo baykat ba ak sàmmkat ba sàmmkat bi ak juram dafa lekk toolu baykat bi ñoom ñaar ñu am ci jafe-jafe dem di ko àttelu ci yonti yàlla daawud ak yonti yàlla suleymaan sunu borom nee na man maa leen àtteloo sama jaam ñooñu ba pare wa naa li xukmihim shahidin ma teewee àtte boobu allahu akbar allahu shahidun ala ahkaami alqudaa الله شهيد على أحكام القضاء الله شهيد على أحكام القضاء sunu borom nee na seen audience yi ngeen di am ci tribunaux yi damay teew audience yi ngeen di am ci tribunaux yi damay teew benn baykat ak benn sàmmkat la yonti yàlla daawuda doon atte ak yonti yàlla suleymaan sunu borom ne maa ngi assisté ma fekkee audience bi ne ko nag na jaar ci dëgg mu ne kon àttekat bi àtte te toog ci kaw fëtëyam ñépp summi mbaxana yi ne yëg na sunu borom nee na wa kunna li hukmihim shahidin maa ngi teew maa ngi teewee seen audience waa loolu kuy àtte boo xalaatee yow assistance suñu borom ci salle bi te xam dëgg gi te yow sax amaan na xamoo dëgg gi ndax doo bàyyi xel sa borom Sas Maxtaar Sarr ne dañu dem tribunal di fekkee bon bonne audience ci benn mbokku daara bu ñu arrêté woon mais bi juge bu duggé fekk tok ci misé ni mbaxana xam nga doomu daara rek mëno tok fenn te doo tudd yàlla ñëpp sumi mbaxana ñu sumi mbaxana yi tok té kurusam di tuddu yalla nene bi juge bu duggé li mu ñëk ko xol xool na ba gis na mbaxana ma sha allah yépp dañ mu xol gis ñu yor kurusam di zikar mu ne ñu yor kurus yi dañu lem seen kurus yi denc ko en ah, fi du jàkka am len seen kurus yi denc ko fi du jàkk lolu arrogance la ah saa diir foofu moom kenn du fa tudd yàlla parce que saalam la daal mais ku tudd yàlla demal jàkka fii du jàkka kon kuy tudd yàlla demal néegu yàlla mais saal boobu mu nekk moom saalam la ak réer sunu borom nee na maa ngi assisté de moo ne wa kunna li hukmihim na mën a lem sama kurus mën a ñokket jóg bàyyee ko xottu saalam fekk maa ngi tudd naan laa ilaha illa loolu la ma fekk may wax kat ci sama kurus téye rek naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah ndànk nag ci suuf mu wax baat yi ma xalaat li may wax ak ki wax man maa ngi naan dara nekk fi lu dul yàlla même ki nu rëyal dara nekku fi lu dul yàlla ma ne ko jàkka ja ak saal ba même yàlla moo fa assisté yàlla bi ne ca jàkka ja nga yóbbu nit ña yàlla booboo assisté ci saal yi li tax saal yooyu dëgg du fa gaaw a jib parce que dañ ko séparé ak yàlla ku ca génnee ca saal ba booy dugg ci jàkk da ngay correct mais booy dugg ca saal ba da nekk beneen nit loolu mooy tax nga jàpp ne yàlla nekku fa wa kunna li hukmihim shahidin bu ko defee mbokk yi